maa ngi tudd Alaaji Mondaw Touba dëkk fii ci Touba yoon Daara Rahman ndaamaatu euh, ñu daje woon fi tey nag ngir am loo xamante ne bii sunu àq la ak sunu yelleef ñuy laaj ba xam dañ ci bokkul wala déet ndaxte depuis neuf ans bi canal bi amee problème 2012 ba léegi ñun ñoo ngi dund inondation te mosuñu ci gis benn solution amuñ kenn koo xamante ni mos nga ñëw taxaw fii soutenir ñu ci dara. te boo xoolee yoon daaru nekk na euh, lieu boo xamante ni jege na jumaa ji mais daf koo sori trop parce que amul leen loo xamante ne bii ñu ngi koy indi ci dëkk bi boo yoonu daaru gis ci seen bopp boo xoolee fii ñu taxaw nii trois tuyaux canal jaar na fi mais amul benn bénéfice bu ci yoon daaru bénéficié wu alors ndox mi jógee daaru xudóos bi jógee jumaa ja bi jógee tout ci dëkk bi fii lay tersee ku ne gis na ndox mi ni mu mel nii bi ñu dajalee mbooloo mi ci la ñëpp ñëwaat nii ngir taxawee lii ngir mu ñor leen parce que ñoom ñëpp a génn kër kenn ko ne da nga naan tëdd yow ak sa njaboot nga uuf sa njaboot mais tey jii njaboot gi yëpp tasaaroo amul kenn koo xam ne yaa ngi yeewu ak sa njaboot ñëpp dem nañ ñenn ñi seen matériel yi nañ borom kër yi li ñu amoon ci alal yëpp defaroon nañ ko seen soxna yi te lépp yàqu na loolu jigéen danañ ci ñëw kon loolu metti na trop ñu ngi ñaan li laay war a sóolu président la ñuy woo nag moom mi nga xamante ni mooy père de la nation ginnaaw bi ñu jiitalee sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na yàgg loolu te wér moom li ko war lépp mi ngi ci mi ngi ci mi ngi nga xamante ne bii moom la waroon muy président de la république ñu ngi koy laaj ba xam ñun dañu nekkul ay sénégalais wala lan la parce que lii metti trop boo xoolee ndox mii nii ay junniy junniy kër maa ngi dégg benn déclaration keroog xaw ma information bi moo normal wala déet ñu ne ay téeméeri kër génn déedéet ay junniy kër moo génn parce que lieu bii ñu nekk rek li ci génn ci kër ëpp na 300 missions kon loolu metti na trop kon nag ñun ñoo ngi woo autorités yëpp di leen wax ne lii metti na maire Abdoulaye Ka yow tamit war nga def sa bu baax a baax a baax a wax parce que keroog bi nga ñëwee fii saret nga dugg kon dafa mel ne affaire bi dese na laa ñor parce que bu la ñoroon di nga wàcc ak sa tànk nga wàcc fii xuus mais saret nga dugg li ci gën a garaaw mooy nga naan borom saret bi defal ndànk kon dèjà ñun ñi nekk kon li ñuy dund metti na ginnaaw yow yaa ngi xalaata dugg saret wàccoo ak sa tànk kon li ñuy dund metti na ñoo ngi leen di ñaan nag li nga xam ne ñu ngi koy ñaan nii ñaanuñ ko par dañuy yelwaan mais suñu àq ak suñu laaj su fekkee dañ ci bokkul nag ñu xamal ne ñun dañ ci bokkul ñu xool ban pays lañ bokk kon nag ñoo ngi woo ñëpp ci ñu dimbale ñu ci lii soxlawuñu ceeb naam baax na soxlawuñu diw soxlawuñu ciment li ñu soxla mooy na ndox mi jóge fii parce que benn ndigal rek la ñu sëriñ bi bàyyee woon muy màggalu Touba te ku ne xam ne ne gi agsi na te fa suñoo yéene dem fenn di ko fa màggali furut suñu dëkkuwaay yi ñoo ngi ñaan fii balaa màggal ndox mi na fi jóge ak nu mu fi mën a jógee loolu la ñuy ñaan gis nga bu nekk doon tali bi ci Touba ci kanam def yoon amul kuy dugg amul kuy génn ñoo ngi sant Touba ci kanam nag parce que lii nii ñoom ñoo ñu ko may opportunité bi pour jàll grâce à Touba ci kanam moom yoon daaru day tëju loolu kon lu doy waar lay doon ñoo ngi ñaan autorité yi lu mu gën a gaaw amul nag ay réunion solution daar daar lañ soxla solution daar daar moom lañ soxla ñoo ngi koy ñaan nag ci yar ak i teggin leneen li ñuy def nag mën nañ ko mais ñun ci dëkk bi la ñu dëkk ci lañu dëkk ci la ñu ci la ñu yore am na yoo xam ne jomb nañ ko wala ñu di ko rus di ko def ci kanamu sëriñ bi parce que sëriñ bi lim ñu wax dégg nañ ko moo tax ñu def lii ci yar ak i teggin di ci ñaan li laay war a sooli ñu wàlluñ ci ak nu mu gën a gaaw parce que sonn nañ depuis 2012 kenn kenn wàlluwuñ ci dara kenn kenn kenn kon nag métti na parce que boo xoolee lii rek sa yaram war naa daw lii na trop fi mu toll nii am na xale boo xam ne barki démb fii la lab man mi maa ko génne ci kanamu mbooloo mi yëpp waaw fii la lab ñàkk ba kanam ci lu dul dara ci loo xam ni ndoxu taw la kon war nañ ci góorgóorlu bu baax a baax nañ nañ ñu dimbale ci dëkk bi ñu assainir ko tali yi baax na naam mais bala ñuy ti tali nañ assainir d'abord waaw nañ assainir d'abord assainir dëkk ba nga xamante ne bii suñ tegee tali bu ndox mi tawatee dina am fu mu jëm loolu daal la ñuy lancé ñoo ngi koy woo ñëpp rek fépp fu waay mën a jógee muy président muy muy ministre muy baa defal yàlla gu mën a doon nañu dimbali laay war a parce que son nañ njaboot yëpp tasaaroo nañ njaboot yëpp tasaaroo nañ gis nga sarax si am fii tax amul fu ñu toogee mbooloo maa ngi nii ci mbedd mi taxawaalu te borom kër bi moo wàcc liggéey aussi ñu ngi koy jaale ay mbokkam waaw kon nag di ñaan suñu borom yërëm ko ko jërë ngeen jëf jafe-jafe ndox mi euh, di leen ñaanal suñu borom tamit wax dëgg yàlla génn lañu génn ñu ci jafe-jafe yi euh, Modou Kane Touba yoon Dar Rahman depuis li Mor na wax neuf ans ñi ngi dund lu mel nii musuñoo gis benn autorité taxaw fi wala benn sëriñ fii amul benn sëriñ boo xam ne taxaw na fi wo ab taalibeem sax wala mu ñëw xool ci yan jafe-jafe la nekk sëñ Bass mi nga xam ne tamit wax dëgg yàlla moom mooy loxob sëñ bi war nay dawal otoom di xool jafe-jafe yi nit ñuy dund parce que tamit boo xoolee nit ñi jafe-jafe yi ñuy dund leer na ma sëñ bi yëg ko si mu ndaxaa yëg ko moom moom xamu ci dara kon donc war nañ koy jox information yoo xam ne wax dëgg yàlla parce que fii ku lu fi ñëw xam ne lu ma 300 kër génn nañ fi tey loolu xam nga ne c'est pas normal amul benn autorité bu fi taxaw dimbale leen du maire du kenn mu joxuñ leen benn moto de pompe. te it fii wax nañ leen ne solution bi mooy ñu andi fi pot moto pompe bu mag ñu branché ko mu dem ca canal ba waaye dafa mel ni comme li ma la waxoon état dafa toll ci sanctionné Touba tey tey tey loolu laa gis dafa toll ci fayantoo ak waa Touba. kon donc jàpp naa ne ñun waa murid yi ñoo war a wu fexe ba lu ci bëree bëri ñu defal ko suñ bopp Abdoulaye Kane ak moom ñun moom sa fii moom amuñ maire bi mu fi ñëwee barki démb gis na li fi daj maire moom amu fi parce que tamit am maire mënoo ñëw mënoo jël ci gox doo xool la waa gox bay daj doo leen dimbale ci dara doo leen jàppale ci dara parce que tamit li ñu jàpp ne mooy Touba ndaamaatu lañ jàpp Kër Ñang non ndaamaatu Kër Ñang yoon daaru gi li fi nekk newut fenn yondaaru gi li fi nekk nekkul fenn kon nañ dimbale askan wi di jox sëriñ bi information yoo xam ne parce que lii sëñ bi yëg ko lii nit ñi dund fii ci ginnaaw sëñ bi xamu ci dara kon nañ fexe ba di ko wax wax li nga xam ne moo xew dëkk bi ndax taalibe yi sonn nañ te ay taalibe donc ñoo loo fi gis mu baax wala mu jag taalibe yoo ko fi def te fii li nga gis lépp ay taalibe ñoo fi nekk sonn fi te kenn ku ci ne am nga sëriñ boo yaakaar te sëriñ booba xamul sax ci yow loo nekk jàppale la leen lillaay wa rasul ñoo ngi ñëpp te ñëpp jàmm di ñaan suñ borom génn ñu ci jafe-jafe yi nga xam ne tamit moom la ñu dund ñu dimbale ñu génneel ñu ci ndox mi moodu Kane moo doon wax ak yéen Touba yoonu Daaru Rahman man ne fii ngeen gis ci ndox mi fi laa dëkk juróomi at sama bopp du jee at trop yoon daa raxmaan gii laa dëkk juróomi at yaa ba sama borom kër nekk naa ba tey at mu jot ma génn maak sama doom at mu jot ma génn ñii fa nekk yëpp mën nañu ko seere at mu jot ma takk sama bag génn sama bagage yàqu sama dund yàqu te susuma ci kenn ma yàlla ti ba sëñ Tuubaa Mbàkke sa jëkkër wan ma nelaw wan ma ginnaaw ma defee sama njaboot xam ngeen ne atelier bi ngeen gis ne kenn du fi fa liggéey di fi génn dara nga war a dund sa waa kër war a dund lépp yàqu musuñu nag ku nu fi mas a taxaw dimbali nu xanaa da ngay roñu daana yàlla gënam tuba sëñ Tuba Mbàkke kon man sëñ Mountakha su ma am sëñ Mountakha Mbàkke la wax ñun ñi xam ne noo jigéen te jaboon ñoo ngi lay ñaan ngir yàlla gëm tuba jëm sëñ Tuba Mbàkke ci borom dëkk bii nga defaroon suñu yoon mi te yàlla rek tax tax ndax sonn nañu dee lañ te gis na genn wallu waaye nag kon sa na noo yuuxu ñoom wallu taalal suñ doxate da yaakaar te daloo yàlla na yaakaar nag doo tax suñ yaakaar Mbàkke taalal lañ na suñ kanam taalal suñ ginnaaw ndax fii ñëpp yëpp te desatu fi ñëpp yàq na tuuma nga biir tout ma nga ca biir suñu bagage ba nga ca biir suñu dund yëpp nga ndax balaa ngaa tëdd akub tar sa bakkan waaw wasalaam loolu laa amoon lu ma ci wax dëkk fii ci Touba yoon daaru di sant ñëpp nag di ñaan ci sëñ Mountakha Mbacké mi nga xam ne moom moo ñu bokk yilif ñun ñëpp ñoo ngi koy tàllal suñu loxo di ko ñaan ndax ñun ci ay jigéen dong lañ amuñu doole góor ñi nga xam ne ñoo ñu war a dooleel ñu ngi nii seeni place tëj nañ ko liggéeyatuñ ndax ndox mi suñuy lal yi ñu defaroon yàqu nañ suñuy dund suux nañ suñu xale mootuñoo jàngi suñu gone mootuñoo dañ ci bitik jëndi jëndit moo jógee ci kër ñu bokk jox ko li ñu war a jënd lépp mu dañ ci bitik ba jënd lépp def ko ci mbuus bu ñëwee partagé ku ne mu jox la soo paree dugg ci biir raxasi tànkam sooy dugg da ngay xuus sooy génn da ngay xuus muy ñi fi xam ne xam nañ fay dese sax tuuti ci kër ñi ci des moom fi dara kër gi ñu jàkkaarloo nit wàññi koo fi ñu fi saraxale tey ji bu ñu doon saraxal baas mi yëpp woon ko fee baas tey amuñu ñu baas kër gi nit ñi dañuy xuus di dugg di xuus di génn ñuy ñaan nag ci yàlla suñu borom mi nga xam ne mooy maye di talal la ko suñu muntaxa ak waa Touba ca kanam ñu dimbali ñu te yàlla rek tax di sant ñëpp nag di sant Modou kan mi ak Mor Ndaw mi nga xam ne moom ak ñi ñu àndal ci waa koñ bi ndax lépp luñ man rek wala luñ sañ a taxaw di ko wax day wax ci dëkk bi ñoom ñoo tax ñooñu doole ñooñu dimbali ñooñu seen ñooñu ñaxtu ñooy xam lu manqué ci koñ bi ak lu war a am ñu diñu ko lijjantil su doon woon ak ñoom kat kon dina gën a metti ci ñun sonn nañ tàyyi nañ damm na ñun ñu ngi ni jigéen ñaa ngi ni kenn jaayatut kenn dematut fenn kenn soratut yéen amatul lu ñu sol amatul lu ñu lekk moto dem fenn ñoo ngi ñaan nag Sëñ Muntaxa ak waa Touba ca kanam ñu dimbali ñu te Yàlla tax